lii moom am ngeen ko ci campagne parce que doon ngeen ci liggéey. campagne moom sant yàlla la ñuy wax. comme yàlla def nañu ba ñu tollee ci wàllum investiture ñu dugal ñu investir ñu. mënoon a investir ñeneen investir mais ku ci nekk ak sa waxtu comme investir nañu yàlla may ñu ak dal may ñu ak wér ñu def pré campagne ba dugg ci campagne ba nga xam ne tey mooy bis bi mujj. Hmm. nga xam ne fii ñaari fan. Hmm. kenn dootul wax affaire élection législative moom danañ ci jàll ak jàmm salaam. Hmm. ñaan yàlla mi yor ndam te di ko jox nag yàlla ko jox ñun waa takku wàllu Euh, liñ ciy def comme mooy sant nañu daal li ñu li ñu ci xaw a méttis ne mooy li nga wax fu ñu waroon a dem te jotuñu faa dem ndax amoon nañu yéene ku ci nekk ñu ñëw ba ci ñu toog waxtaan ak yow ne la kat lii moo ñu tax a jóg lii lañ bëgg bu ñu amee lii lañ bëgg a def te xaj na am na ñu ñuy dégg am na ñu ñuy woo jotuñu ñu am na ñu war a woo woowuñu leen yooyu yëpp ay ay ay yu manqué la yoo xam ne tey comme ni nga ko waxee bu ñu amoon lu ñuy lu ñuy yokkaat loolu la ñuy jéem a defaraat mais doomu aadama moom matul laneen li ci des nag mooy. mais loolu ñàkk koppar la wala ñàkk personnel la wala lan la. non du ñàkk yooyu yëpp du ci benn. mais budget campagne bi moom. budget campagne bi bariwul bariwul. xam nga metti na bu ñu waxantee dëgg campagne bi metti la ñu def. mais ñun duñ campagne opposition moom daa metti. ñun campagne metti ñu def. waaw mais ñun loolu lañ mas a xam. ñun suñu suñu suñu suñu lépp luñ koy mooy ci askan wi rek lañ koy def mooy bu ñu waree dugg dugg bu ñu waree dox dox bu ñu waree toog toog moo tax dara du ñu jaaxal ci lu ñu mën dund ci ci bu ñuy bu ñuy def campagne hmm. donte que ne metti na mais du ñàkk ak dëkk bi dafa rëy. Hmm. dafa metti su waxuma la dëkk bi nag nga ne département bi. xam nga pour nga dem fépp jafe la. Hmm. loolu moo tax ma ne la yooyu rek mooy yi nga xam ne moo li xaw a metti mënoo dajal dëkk bi. kon campagne bi moo doyut wala maanaam ñu investir. même ñi nekk au pouvoir sax bu ñu la waxalee dëgg ak seen traay bàmmeel demuñu fépp. même bu ñu la joxoon lépp àdduna li ji ci alal a koppar lépp it demoo mënoo dem fépp. dëkk bi moo toll noonu maanaam département moo rëy rëy goo xam ne mënoo ko waaye daal képp ku jot suñu message wala nga gis suñu ndaw xamal ne kooku ñun suñu sañoon ñun ñooy ñëwal suñu bopp message bi mu lay jox jàpp ko ñun ay ndaw lañ daal yoo xam ne bokk nañ ci ñi dagaan baatu askan wi le 17 sàkkwit ngeen jox ñu mandat le 17 incha allah bu ko defee Khadim taal ak ñi mu àndal ci seen liste mën a dem assemblée nationale pour représenter le département ndax jaadu nag jot na fi mu toll que am député boobu tudd xaarim waaw comme Touba la ñu dëkk de borom dëkk bi xaarim la tudd am sëñ xaarim ma soxla na waa dëkk bi jox sëñ xaarim ah waaw ñëpp moo ñëpp liste yëpp man lañ war a voteel waaw <laughs> ah, yëpp hmm. man lañ war a voteel macha allah sëñ xaarim baaxoon na ni ba la ñu tëj sama technicien bi may def siñ san waaye nga may ma rek mu dugg foofu gis na ni tam ñaare da nga gis koo xam te day wote ji ba pare yoru làmmiñam hmm. wote leen bulletin sàngam wote leen bulletin sàngam lan ngay wax itam ñi nga xam ni da nga ànd ak ñoom. Mhm. nekk ci dëkk bi di parce que élection ñaari carte nga am. Mhm. muy sa carte bi ngay dugal ci urne bi ak sa làmmiñ. Mhm. nit ki su watee ba pare. ban message nga koy lancé rawatina ñi nga àndal. ak ñi nga xam ne dañuy ñëw en général di indi ay provocation. ban message ngay lancé jëme ko ci ñoom. waaw xam nga foofu daal li li nga wax rek. yàlla suñ borom noppi na ci lépp. boo doon takk rajo yeeg. taal télé yeeg ndax jox nañ la ñaar fukki fan ak benn ngay wax di wër. dem fépp foo war a dem. la ca des dogalub suñu borom lay doon moo naan xaadim moo war a nekk député la di set su ko waree nekk kenn mënu ko tee nekk boo fa doon takk ku taxaw nga ne ko woteel biit loolu du am yow li la war rek mooy xëyal sol say yére ñu set dox ndànk ba ca centre ba ngay voté nga voté soo paree nga jógewaat foofu sa kër dem ñibbisi ndax lay lay war ci wàllum sécurité vote bi sécurité bi ma nga fa parti politique bu ca nekk am nga ab représentant ca biir bureau ba ñi nga xam ne nekkuñu ci benn parti dañoo indépendant ñoom it ña nga ca bureau ba toog kon li may wax ñi ànd ak man ak ñi àndul ak man képp koo xam ne daal sénégalais nga te war a xëy dem vote ji moo xam ci dëkk bi wala ci euh, ci Sénégal wala ci diaspora bi xëyal nga dem def sa acte citoyen boo paree nga dem ñibbi sa kër. Mm-hmm. toog xaar ngoon li génn ci bureau de vote yi lu yàlla suñu borom nam ñu xam ne lii la suñu borom wax waaye ku nekk daal sañ na def li mu war a def te loolu ñun foofu la ñuy tàllal loxo ñëpp foofu la ñu nekkit jàpp naa ne daal képp ku ànd ñun du ngeen dégg que ne def na lenn lu mu def wala coow na ci dëkk bi lu mu warul coow li ñu war a def daal ñu ngi koy def ci jàmm ak ci salaam ak ni ko sëñ bi bëggee bu bis baat danañ xëy am taxawaay bi ñu war am pour mën a dem ci élection yi ñaan yàlla suñu borom mi yore ndam tey joxe yàlla nañu ko jox. ñiy séese nag fu ngeen nekk toll ñoom lépp mat na. yooyu yëpp defar nañ ko. Oh, waaw yëpp moom defar nañ ko. ñu te am nañ ay ay ay am nañ représentant bureau de vote am nañ ay mandataire mandataire waaw. nga xam ñoom ñooy xool liggéey bi solo bokk ci liggéey bi. waaw parce que mooy li ma wax ne la. parce que foo amul yenn accès yi say nit man la faa teewal. dafay am solo ah, bu fekkee am nga loo ci bëgg a te laaj ñu ko rek a ah, waaw xanaa sant la gërëm la rek am émission bi moom yàlla def na euh, ci man nga ko tëjee. waaw may ñaanit ni nga ko tëjee ci man it yàlla na ko ubbee ci man la di set. ma ma ma gagné. nga ñëw ñëw ne ma ah comme yow la yàlla jox ndam li. boo mën nga jox excuse ah yow comme ni ma ni mu ko tëjee yow laa koy defewaat ak yow rek. incha allah ndax euh, nit ku baax nga. Ah, di nuyu waa Mouhalim ñëpp di leen ñaanal rek. yàlla suñu borom mi nga xam ne moo man te sañ tey joxe. yàlla na def seen seen site bi mu nekk télé bu mag a mag a mag a mag bañ koy dégg ci àdduna bi yëpp di sant ñi nga xam na ñoom laa bokkal intercoalition bi yëpp it euh, wax dëgg liggéey bi rafet na di sant samay kilifa kilifa ci parti muy le président Abdoulaye Wade muy le président Karim ndax confiance bi ñu am ci man lu rëy la lu ma xam la lu ma natt laat di ñaan yàlla suñu borom mi am kàttan te kàttanal nit daal yàlla nañu kàttanal ba li ñu namm ci man man it yéene bi ma am ci ñoom man ko matale di sant aussi sama mbokk yi nga xam ne ñu ngi toog di assister émission bi eh, sëñ xaadim sëñ Kara soxna nday ak ñëpp ak ñi nga xam ne bëggoon nañoo teew te teewuñu. ak suñu waa ak ak suñu waa ji ma fari Ndere suñu chargé de communication. <laughs> nekk jàmbaar lool. di nuyu ñëpp daal maa ngi nuyu le département bàyyiwuñ kenn.